il faut dire l'état politique l'état pour les populations les populations li gën a metti mooy ministère du commerce et de la consommation tout est cher ce ministère est inexistant politique parce que malheureusement ce ministre na sur kii ñun dañu fondé woon espoir parce que il a un bon profil malheureusement pour lui et pour les populations on lui a collé la casquette de porte-parole porte-parole loolu rek la talu leneen talul consommateurs yi talul population yi loolu la tal subaak ngoon mi ngi ci euh, plateau yi euh, di dagg santi di defante di di parce que liggéey boobu dañ ko ko sant donc les populations sont laissées à elles-mêmes loolu moo fi nekk fu ñu dugg rek secteur boo dugg euh, courant ndox n'importe foo eh, dugg rek am na ku may interpellé loyer baaxu ci parce eh. que organes yi nga xam ne ñoo war a défendre réellement les populations muy état parce que ñun défense bi ñuy def c'est du bénévolat pur et mhm. dañ koy def ngir yàlla pour ñu ñu mel ni ñun kenn joxuñu ci dërëm population yi booy wax wax bu bare sax. <laughs> wala ñu déglu li ngay wax dañ naa waaye kii dafa bare wax waaye. wala kii gars yi dañ ko jox xaalis moo tax muy wax wala du mujj fenn wala non kii dafa bëgg place wala kii dafa bëgg place wala kii. mais man une fois mhm. un haut responsable très proche du président de la République. fekk na ma hôpital Le Dantec fekk ñuy inauguré à l'époque euh, kii euh, coronarographie mu ne ma yow yow yow daal opposition yow dangay utiliser sa association bi pour être un opposant ma ne ko alhamdulilah maa ngi sant yàlla comme yéen noonu ngeen ko gisee ça veut dire que li ma leen di wax metti na leen mais man du ma wax loo xam ni je ne suis pas documenté mhm. moo tax toujours secteur bu mu munti doon dama leen di encourager yéen journalistes yi ngeen di organiser débat contradictoire parce que bu boobaa la dégg gi di feeñ bu boobaa la askan wi. xam ni xam problème invité nga <laughs> problème invité nga ah oui rek ils viennent. waaw ah, ils viennent waaw. Ah nañ ko moom wax wax lu leen neex. Mhm. Birame. tontu ku leen neex. Ah. <laughs> mais fii doo fi dégg yoo tamit lu la neex que aussi kan ci euh, yéen seen taxawaay des fois de consommateurs. waaw waaw des lay des. waaw day n'a pas. le pouvoir d'exercer l'action publique, comme ça se passe en France ou ailleurs, faire condamner des sociétés, faire condamner des gens comme Total, où il huit morts, ci benn événement. boobu kay moo nekk. boo xam ne bii drap bu gën a garaaw boobu amul. normalement il des gens qui devaient en détention dans ce cas man sama. comprendre nga Total toog ba mu neex ko près de vingt jours soo ko def benn communiqué naan. Mm-hmm. Euh, voilà rendez les bouteilles machin et mais koy bi. boo ko delloo bu tey mu ne mais jaayu ma la ko. Mhm. yow ban preuve nga am pour wane ni moo la ko jaay. Mhm. parce que moom amul place pour dajale cinquante bouteilles wala kii amu boo ñëwee ni ko dama lay delloo si bouteille bi total ne nañu delloo si il va dire man jaayu ma la ko. Mhm. looy def après le total wax naan wala boo indee ñu jox la or c'est le ministère du commerce qui devait prendre dès le départ. un arrêté pour pour le retrait de ces bonbons la à ce moment Total ne fera qu'exécuter la décision du ministre et le ministre contrôle l'exécution de cette décision par ce que waruñu woon demander à, à Total d'arrêter de confectionner des gaz des mm. bouteilles de gaz. en tout ñu dem enquête xool est-ce que ñu ngi respecter les normes ou pas. voilà na mais dañu waroon arrêter production bi nañ ci profiter pour organiser un contrôle général de toutes voilà, les bouteilles. Voilà, mmh. parce qu'il y va de la sécurité des Sénégalais.